واجعله دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصويب والتفهيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara te di leen ndokkeel eh, di leen baalu àq di baal àq ñëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal son borom mu yàggal ko fi te wéral ko di am mbégte bu baax a baax ci ñëwaat ci seen émission gàggantiku émission boo xam ne daayira Muxaddamatul Xidma moo koy def di ko jaarale ci seen bi nga xam ne mooy seenu daayira bi di mu Muxaddamatul Xidma TV walla eh, GMT euh, TV muy seenu Grande Mosquée de Touba mu émission boo xam ne dañ ci laabiré dañuy ñëw ci borom xam-xam bi nga xam ne moom lañ koy àndal ngir indi ci moom tomb boo xam ne dañ ci la dañ ciy laabiré ci suñ diine mu ñuy jariñ fii ak fële euh, niñ ko baaxee defee nag ñëwaat nañ fii ci Daaru Salaam Ndaam ci kër Sëriñ Mbàkke Abdourahmane ngir fas yéene ànd ak moom gàgganteku tey ci tomb bu am solo nga xam ne nekk nañ ci ay waxtoom muy suñ ñaareelu tomb ci ci tomb boobu muy <coughs> muy aj aj alxajju baytullahi al haram xam nga ne dafa <coughs> def nañ ci benn émission boo xam ne ñëw na ci ay tomb yu am solo kon dañuy ñëw ci ñaareelu wala ñetteelu émission bi ci euh, mbokk yi laaj yi nga xam ne indi nañ ko te mu aju ci aj euh, su ko defee xam naa ne dañuy jox sëriñ bi mu nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci biir réew mi ak ci bitim réew ñu jublu ci laaj yi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 di eh, sargal mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp jataay bi mun nga ko waxee jataay bi yi weesu te ñu waxtaan ci aj màkk muy tomb bu am solo yi ñaan yàlla ñi nga xam ne ñu ngi waaj jëm foofu yàlla yàlla dafa leen tawfiq dafa leen ci taysiir si dafa leen xabul jërëjëf sëñ Abdou euh, sëriñ bi ci nuyoo bu am solo boobu su ko defee xam naa ne dañuy daal di bi rek ci suñu juróomeelu laaj boo xam ne aju na ci ci aj muy muy muy toftalu ci ñaari émission yi nga xam ne moo jàll bokk mi dafay laaj mu ne ki nga xam ne dafa dafa dafa xas armal ba noppi euh, ba noppi def euh, lan lañ koy lan lañ koy tere ci bu fekkee ne dafa armal wala yi nga xam ne dañ ko koy tere tamit euh, su ko defee lan la lan lan la lan la koy jage maanaam lan la koy saafara waaw jërëjëf si Abdou Lahad xam nga nit ki bu xasee armal ci aj waxoon nañ ñeenti ponk yi nga xam ne ñoo ci nekk armal moo ci jiitu mooy yéene bari na koy tere yenn yi bu ko defee ajam day yàqu yi bu ko defee da am daanuñ koy teg kafaara def euh, bokk na ci yiñ koy tere bu dee góor sol luñ ñaw on naa ne jataay weesu nit bu xasee armal du sol yére sol luñ ñaw sol tubëy du sol mbubb amul jiit amul dara ab sër ngay woddoo kodd moo xam doo ko fas ak lambaay goo xam ne nga koy muure sa yaram sàngoo ko doo ko fas doo ko pinge doo ko butuñe loolu nag bu ko xëttee bu ko xëttee day jotu kafaara war na ko ci du solit lu peeg aw yaramam mooy lu benn jaaro wala montar wala montar wala ndomba wala yooyu noonu luy peeg aw yaram liñ ci maye daal mooy kamara gi nga xam ne ci ngay def sa xaalis ak say pièces. waaye moom it na ko takk ci saw yaram waaye bu ko takk ci kaw yére armal bi. kon loolu bokk na ci li ñuy tere ko armal. bu dee jigéen nag terewuñ ko sol yére mu ñaw moom. day sol ay mbubam sol tubay. léegi nag euh, bokk na ci ñuy tere muur bopp bu dee góor nit bu xasee armal dootu muur bopp. du sol mbaxana du kaalawu ba ci sax bu tëddoon di nelaw bu mu sàngu bu mu muur bopp bi mhm. loolu moo tax bàyyi xel nit bu xasee armal dañ koy tere muur boppam buy sàngu it na xam ne bopp bu mu bokk mhm. loolu dañ koy tere mën na takk ay weer ay weer mën na ko takk moom mhm. waaye ndax lu weer peegul aw weeram waaw rawatina weer yoo xam ne xëy na weer yi tubb la nga xam ne ay miab la wala yu mel noonu wala sax tàngoor rek yu mel noonu Euh, bokk na ci bu dee jigéen moom dañ koy tere ay loxoom ak xar kanam lañ tere mu muur ko bu mu sol ay gànkoon bu muur xar kanam gi lu dul da cee jublu romb ay góor te bëgg a suturaal boppam mhm. waaye muur ko ngir fekk aw tàngo wala sedd la ci bañ ku xas armal kon dootoo muur sa kanam mhm. dootoo muur bu dee jigéen du muur ay tànkam li des lépp ci yaram nag doo sol ay kawas sol ay kawas ndax kawas lu ñaw la mhm. moo tax sax fi ne bu xasee armal dootoo sol ay dàll dàll yi dàll yu tëju bu dee jigéen la jigéen moom terewuñ ko sol lu ñëw moom ah kay terewuñ ko sol kawas déedéet sol wuñ ko ndax jigéen moom terewuñ ko sol lu ñëw mm-hmm. terewuñ ko góor lañuy ñuy teral mm-hmm. góor moom ay daal la ñuy sol daal cerax lay doon mm-hmm. daal di cerax waaye bu mu sol daal yoo xam day day muur day muur tànk tax ñu bari fii bu fekkee ne xëy na yóbbu bu ñuy dem bu ñu jënd yére almaam nañ fa jëndal daal cerax yoo xam ne nañu fexe bu bañ a doon yu rattax ndax mën naa indi léeg-léeg ay jafe-jafe kon euh, ku xas armal dootoo watu dootoo leweeku dootoo dindi tilim gi ne ci sa yaram moo taxoo doo jëfandikoo it xet gu neex doo xeeñoo parfum doo xeeñoo cuuraay hmm. yëpp dama bàyyi xel yëpp dañuy tere ko armal di ko na bu tàngee ba tàng na mën ngaa xëppoo ndox xëppoo ndox goo xam ne amul bomb surtout surtout yi nag mën nga koo sàpp moom bu tilimee mën ngaa sol yeneen yére bu taqee sa mën koo bu sa mën koo fóot ay bu ko fóotee saabu bu am xet mm-hmm. fóoti saabu kon nit ki mën naa wut ñaari yére am bu fekkee dafa yàgg loolu mm-hmm. waaye bu yàgg loolu sa jër ko nag ndax torox gi ñu bëgg ci jàmm yére yu tilim yooyu mm-hmm. daa am mbégte ci solo yére yu tilim ndax yàlla kooku sant mu ci bég na bu dee yàgg ba nga ne lor mën na ci am nag mu wut ñaari yére wala mën koo fóot loolu bokk na ci yi ñu tere kon koo xam dafa armal ngir aj wala li ñuy wax yëpp nag aj ak umra ñoo ko bokk du jëfandikoo gëtt ci ay yéreem du ko jëfandikoo ci yaramam du diw aw yaramit nag mhm. ñu baaxoo diwoo nii bu ñu sangoo dañuy diw yooyu foofu nañ xam ne kenn du diw mhm. lépp luy nool yaram di ko rafetal di ko di ko ne yooyu dañ koy tari xanaa mu wéra di pomade boo xam ne fuy mett wala mhm. waaye diw goo xam ne ngir rafetal aw yaram wala ngir nooyal ko wala dañ koy tere ko xas armal loolu góor ak jigéen ñoo ci yem dañuy tere nit bu xasee armal jaxasoo soxnaam loolu bu ko defee ak gi yàqu yi ñu njëkk a wax nag boo ñu defee benn dangay ngay tuur deret kafaara moo lay war kafaara ñett lañuy ñuy tànnaloo. Hmm. benn nga tuur deret wala nga woor ñetti fan wala nga leel juróom benn fukki juróom benn miskin ku ne nga jox ko ñaari mudd te la ñuy tudd jotu wala kafaara saa boo defee yi ñu la wax dañ koy tere te muy nekk loo xam daa daa daa daa ci yaram wat kawar lewi say we wala nga dindi tilim bi sa yaram yu mel noonu wala nga sol lu ñaw yooyu yëpp day kafaara. Hmm. kafaara gi nag yaay ndax da ngay tuur deret tàmbalee gileem ba ci gàtt wala dangay ngay war ñetti fan wala da ngay leyal juróom benn miskin ku ne ñaari mudd yooyu nag foo ko defee baax na tënkul la fenn mën nga bàyyi ba ñu bis bu la neexee. boo hmm. koy def nga kon bu dee bu dee yooyu ñu wax dañ koy tere boo ci defee yu noonu yi ñu waxoon ne ay waajibaat lañ kooku moom xad yu lay waral waajibaat yi ñu waxoon ne boo ko bàyyee fi ñu war a armale boo fa armalul ngay eh, tuur deret eh, waxoon nañ ko ci jataay ya weesu dégg nga eh, ku weesu fi ñu war a almale te armaloo waxoon nañ ko tawaaful xudóom ku mu warte defoo ko waxoon nañ ko yi mel noonu kooku mu xëdd yu ngay def bu dee yi nga xam ne bànneex la àndal nag moom mu ngay defal kafaara la ñuy tudde fidyatu moom war ñetti fan tuur deret ak leel juróom benn miskin ku ne ñaari budd ñett yooyu lañ koy tànn loo mooy tànn bu ko ci ñaax nag mu def ko Euh, amma bu dee joteeg soxnaam nag moom da yàq aj gi saa bu nit joteeg soxnaam njëkk muy sànni jamra aj gi yàqu na te lu dowaar yàqu fi ne aj bu yàqoo faaw danga koy soppi umra yeewee ko ci umra boo ko yeewikuut day des yow ba déwén moo tax bu da ngay dem yeewee ci umra ngir mën a mën a moomal sa bopp bu déwénee nga fay si ko dañuy dañuy tere ko armal rëbbu ah tey Euh, boo génnoon rëbbi loo rey medd la mm-hmm. nit bu xasee armal lu mu rëbbu ci rabi àll yi medd lay mm-hmm. dañuy tere yëpp même weñ yee yëpp bu ko mënee moytu bañ leen rey mooy li gën mm-hmm. waaw ndax meew tax fi ne dañ koy tere muy wokk yaramam sax fu mu ndax maa ngi koy wokk rey fa dara wala kawar dagg fa te loolu sañoo dagg kawar yooyu dañuy wax bu dee foo gis jàkkaarloo moom nag sañ nga ko wokk moom mu la neexee waaye luy tax kawar wadd wala kii da lañ koy tere ndax boobu même boo ko defoon ngir ngànt it ngànt li bàkkaar lay tegi waaye du tee eh, kafaara bi war la waaye naa bàyyi xel eh, bu ko defee ni kii bu rëbboon ñu bàyyi xel ne lam rey medd li kenn du ko lekk mm-hmm. nit bu xasee armal sa ñëwtu rëbb ba ci des ñu bàyyi xel ne ko xas armal ngir aj wala doo fas ab sëy dee su la may soxna gis mukk mu ne aji na màkk ñëw gën nañ ko fasal soxna boo ko fasee du wax mm-hmm. moom ci boppam mënut a fas ab sëy kenn du kenn ko may soxna bu dee jigéen kenn ko mayee. ci biir armal bi. waaw fii ak armalul ba ba noppi. waaye hmm. bokk na ci yi nga xam ne dañ koy tere sëñ bi baarakallahu fika eh, tontu bi leer na lool macha allah eh, mbokk bii dafay laaj mu ne eh, bëgg na daal nga laabir ko ci yan mooy xeeti tawaaf ak lan mooy meloy tawaaf tamit ci boppam maanaam wër kaaba gi daal. Hmm. xam nga tawaaf moom am na ci boo xam ne rukun la. Hmm. mooy tawaaful ifaada. bu dee umra it am na ko hmm. tawaaf boo xam ne mooy bi ngay def ngir umra ko ko def aji de yàqu bu hmm. am na tawaaf boo xam ne sunna la wala waajib la hmm. mooy tawaaful qudum mooy bi nga xam ne boo ñëwee ci hôtel bi ba teg say bagage rek waaw ku fekkee dëkk mag boo ñëwee ba teg say bagage te yéene ifraat wala nga yéene xiraan waaye ki yéene tamattu tawaafu umra lay def kooku dawul tawaaful defee tawaaf boobu it mooy tawaaf bi nga xam ne waajib la boo ko bàyyee da ngay tour deret waaye teew aj gi jëf ak tawaaful wadaa boo ajee ba aj gi jeex sa lépp jeex bañ na la tey boo xëyee nga ñibbi boo may dem wëri kaaba ci guddi gi def nga xam da ngay tàggu kaaba gi boobu sunna la tawaaf wu tawaaf yi ñoom ak nag tawaaf yi naafi la ma sant ba aj gi jeexee nga bokk ci yéex a ñibbi loo gën a mën a bareel dem tawaaf moo gën moo gën jëw sax nga dem fa di julli ndax yow julli foo dem man ko def ki fa dëkkul daal la goo xam ne boo xasee wan ginnaaw kaaba gi mënatu ko nag moo tax loo baril naafila yi ci wax tawaaf yi doon da def bis bu set nga xëy def tawaaf bu ngoonee nga def tawaaf baax na soo demee nag ba ñu ne da ñibbi nag nga doon def mujj ba yéen a ci tàggu kaaba bu yàlla dogal na teel a ñibbi nga xam ne bi nga def tawaaful ifaada ak bi nga ñib benn la mhm. boo ko yéenee ci ifaada amaale ko ci tawaaful ifaada mën nañ cee yéene waale tawaaful tàggoo mhm. kon am na tawaaful xudum waaful ifaada mooy bi ñu def ci bisu tabaski bi waaw bi nga moom ponk la ci aj dégg nga bi ñu def mooy tawaaful ifaada tawaaful xudum mooy bi ngay def booy door a ñëw boo jeexalee ba ñibbi mooy tawaaful wadaa yi ci des nag mooy yi ngay def bi nga jeexalee aj te ñibbee ko di di siyaare ak di barkeelu waaw tawaaf yëpp na ñoo bokk ñu ko defee mooy booy dikk yaa ngi tàmbalee ci xajar xajarul aswad bunt bi nekk foofu nga tàmbalee sa wetu càmmooñ mooy féete kaaba gi moom ngay wëree wëree fi nga tàmbalee woon boo fi dikki am nga benn. Hmm. noonu ngay def ñaar ba mat dañuy bëgg it nga dànd kaaba gi ndax kaaba gi yëpp ndax boo sësee ci kaaba gi loolu ñu wax saa saa nga xam ne man nga koy tiim sa loxo ne ci biir booba yaa ngi wër waaye sa loxo bii wërut moom mi ngi ci biir kaaba gi. Hmm. ndax loolu dañuy wax ci biir kaaba gi bëgg sa lépp na ci biir booy tàmbali dañuy bëgg ci xajarul aswad boo ko manee nga di ko fóon ko wax allahu akbar hmm. soo ko mënu nga nga tekki sa loxo. tekki si gémmiñ waaye bu ko muuju wax allahu akbar bu njëkk dañaa bant xëy na fa ay bant moom hmm. xel lootul bu loolu lépp jafee boo tolloog daju rek neel allahu akbar fas yéene tàmbali boo gisee ñu naan dañoo bëgg nga duggee baabu salaam hmm. baabu salaam boo fa duggee dangay ngay bunt bi da ngay accès tàmbali tawaaf hmm. beneen bunt boo duggee nag dangay ngay wër wëri ba accès ba accès foofu waaw bu defee nag boo dikkee foofu ngay tàmbalee boo dil see muy benn boo dikkaatee mu ñaar tawaaful sax bëgg nañ ci moom ñetti wër yu njëkk yi nga ñukku waaye loolu it daanaka léegi mënut nekk xataay ba tax na daanaka kenn mëntalu ko moo tax kenn jëru forcé mhm. ndax loolu nekkul ponk boo xam ne boo ko defut day yàq mhm. da bi ngay ñukkee it boo ko dara waaye boo ko bu nekk rek baax na mhm. ñett yu njëkk yi dox yi ci des bu tawaaf bi àggee diggante daal rukun yamaan ak xajar xaswat bëgg nañ nga jàng fu rabbana atina fi dunya xasan sabab ak seen mooy koñ bi nga tàmbalee woon boo defee benn koñ ñaar ñett ñeent nga ne ñeenteelu koñ bi ngay war a ñëwaat bi nga tàmbalee woon diggante boobu nga jàng rabbana atina def nga bi bi nga xam ne mooy tey nga bi nga tàmbalee ci bi nga tàmbalee woon mm-hmm. ñaareel baa ngi ne ñetteel baa ngi ne ñeenteel baa mm-hmm. war a dellusiwaat nag ci bi nga gi nag mm-hmm. da ngay ñaan loo mën ci lu baax jàng alxuraan jàng xasida ñaan yoo mën rek booy toog di ko def moo gën ne ne di photo wook ci kenn xam foo xam bala bu jaamu yàlla la yàlla mi ngi koy def mi ngi lay gis gisu keneen amul solo kon tarkiisal ci jokkoog sa borom ñu di ko toroxlu di ko ñaan. moo gën a de sinab yi yàq na aji moom. nga eh, gis ba ci biir Kaaba ga ñuy sinab. xam nga ki def loolu bari na ci xam ne kon bàyyeetul xel yàlla mi ko doon. Mm-hmm. mi ko foo woon. Mm-hmm. ñu bàyyi xel yooyu baax a baax bu boo demee moom. Mm-hmm. xam ne yàlla ngi lay gis mi ngi xool li ngay ba ya moo tax wala taxul. na bàyyi xel. nga tarkis ci loolu fexe ba mu sell. loo mokkal ci ay ñaan di ko def ndax foofu waxtu barab bu ñu nangoo ñaan la. kon bul xeeb dara. ñaanal sa bopp ñaanal say mbokk ñaanal sam réew ñaanal lépp ñaanal la ñuy dund ñaanal ñi faatu mhm. kon passé la boo xam ne boo ko ci defee doo tal leneen bu julli jotoon nag sañ nga koo dagg tawaaf bi julli waaye nag bul naafil boo sëlmalee jógal àggale mhm. waaye la ñu nag boo tàmbalee ak wër ñu taxawal te nga mën a àggale wër googu àggale ko door door door a kàmbar yow sof ba noppi ba noppi àggale foo sëlmalee nag nga jóg tàmbalee mhm. baarakallaahu fika sëriñ bi jërëjëf euh, tontu yooyu leer na euh, bokk bi dafay laaj tamit comme ni mu laaje woon léegi ne lan mooy xeeti tawaaf yi ak euh, naka lañ koy defee noonu lay laaje tamit lan mooy dox safa ak marwa waaw dox safa ak marwa it si ña mhm. ci ponk aj la bokk mhm. ci ponk umra la bokk mhm. yëpp boo génnee moom ak tawaaf lay jokkalool tawaaf gi day nekk góor boo tawaafee ba noppi booy jeexal xam nga da dem julli ñaar rakka ji gën a maax Ibrahima dem naane ndoxum sam-sam da nga daal jawee dem dem safara yépp léegi mi ngi ci biir tabaxu kaaba gi biir bii jàkk ji am na foo xam dañ la koy nga gis ne fee mooy dojoo léegi sax dañ ko def noo xam nit ñi mënu ci àgg ndax dañ faa dem di ko di ko akkati tax ñu def ay weer ba doo faag waaye da ngay dem ba fa sës nga nga taxaw fa jàkkaarloo kaaba gi ñaan yàlla tàmbali ñaan boo ñaanee ba noppi nekk fa ngay déparé wuti am marwa boo àggee marwa nga defaat noonu am nga benn yoon boo dellu see safa muy ñaar nga dellu marwa muy ñett nga dell safa mu ñeent nga dellu muy juróom nga dell si muy juróom benn nga dellu muy juróom ñaar kon ma safa ngay tàmbalee jeexale marwa mm-hmm. ci diggante bi nag am na diggante boo xam ne faa def ay làmp yu wert diggante boobu dañu bëgg nga ñukku nga daw ko boo jógee safa ba agsi fa da ngay daw ba weesu boo jógee marwa ba agsi fa da ngay daw ba weesu ñoom nag waa réew ma def nañ jàmbaay ci sax fexe ba xeetu kii la nga xam ne ñii dem ak ñi dikk mm, duñ duñ daje mm-hmm. loolu ak yombalal gi ko am solo def nañ état sit nag foo ci wëre baax na foo ci doxi baax na dox Safa Marwa nag euh, moom dañ ci wax sopp laab mm. waaye du jub sart tawaaf nag faaw da ngay laab moom mm. tawaaf moom boo doon tawaaf ba sama jàpp toj da ngay génn jàppi tey la nga njëkkoon dafa yàqu na mm-hmm. boo dikkee da ngay tàmbaliwaat moo tax booy dem na nga waaj kuy tawaaf na nga waaj ba mu leer na ne bàyyil xel ne it xataay ba dana tax léeg-léeg mën naa yàgg kon waajal waajtaay woo xam ne doo fi soxla sa bopp ci diggante boobu loolu jar na bàyyi xel ku aji mu def ko bu dee dox sa maroo nag moom mm, dëkk bi sart waaye nag moo gën soo mënee laab daal moo gën waaye nag dëkk bi sart boo ko defee du tee mu baax kon loolu noonu la ñuy doxee saa mën a ci aj noonu lañ ko defee ci umra it seen macha allah barakallahu fika jërëjëf kii dafay laaj tamit ci biir euh, aj gi naka la ñuy sànnee jamra waaw xam nga sànni jamra ñaari day mel ne ñaari étape bu njëkk bi mooy bi nga fanaane Musdalifa ñu ne la boo xëyee na nga fa for juróom ñaari xeer yu ndaw xeer yi bu mu doon wu tuuti lool ba mel ne ab doomu doomu doomu doomu doomu doomu doomu ab gerte bu mag wala sëb bu mag xaw mage daal lañ bëgg nga for juróom-ñaar boo dikkee ni ngi def sànni moom ba toll moom di sànni sànni la wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar juróom-ñaari mat bis boobu jamur ak wa képp ngay sànni. daal di fay jógee dem màkk. xam nga bis bi nga ñëwee waaw dem màkk daf tawaaful ifaada dellusiwaat mi naan. ñetti fan yi tege nag saa boo xëyee da ngay for ñaar fukki xeer ak benn yoo xam ne foo ko fore baax na waaye yu njëkk yii lañ la wax ne na nga ko fore Musdalifa. waaye yii moom foo for ba waaye nag dañuy bañ nga wut benn xeeru mag toj ko toj ko yu ndaw. Mm-hmm. dafa loolu wutal ay xeer fortaatu rek. wut sa ngisee ndax ci mat ñaar fukk ak benn ñaar fukk ak benn yooyu boo dikkee ñetti jamra yëpp ngay sànni jamra bu njëkk bi nga saf ko juróom-ñaar moo ngi niñ ko waxe allah bu day ànd ak kabar boo noppee dañuy bëgg nga taxaw ñaan jublu xibla ñaan ñaan door dem jamara wusta sànni fa juróom-ñaar mooy itam boo noppee jublu xibla ñaan dem ci al jamaratul axab mujj bi foofu dañuy wax dafa xat moom boo boo sànnee ba noppee mën ngaa dem kon noonu la ñuy sànnee jamara yoon wu ne day ànd ak kabar doo ko fa teg nag sànni la wax. Hmm, da koy sànni ci waaw faaw sànni lay doon. bu dee bu rëy lool gënut waaye baax na bu dee bu tuut lool nag du doy lu tuuti loo xam daa tuuti ba jéggi dayoo loolu boo ko sànnee du baax kon faaw nga wut xaw a rëy xam nga suuf su suuf su kekk la bari na ay xeer yu hmm. am na ñoo xam ne gis bu ñu demee Musdalifa dañuy wut lu mel ne ab bidon wala ak mbuus. ba tey for xeer yu bëri nga xam ne moom. bët bu set dañuy am juróom-ñaar yu ñu mën a sànni ndax yooyu foog ndax fi ni tey mhm. boo amee xam nga ñaar ñaar fukk benn ñaar fukk ak benn ci ñetti fan yi mhm. loolu ñaata la ah, ak juróom-ñaar mhm. ñetti ñaar fukk ak benn daal ak juróom-ñaar ko xoree boo ko amee def ko ca daal mm, mm. sëriñ bi euh, laaj boobu leer na nañ macha allah kii dafay dafay laaj euh, lan mooy maanaam euh, ko maanaam yeewiku bu njëkk mooy yi nga xam ne dañ la ko doon tere ci bi nga armale euh, fan ngay dem ba ba nga xam ne am na yoo xam ne mën nga koo bàyyi te du la wàññi dara ak faneen fooy dem foo xam ne moom la ñuy wax yeewiku ñaareel nga xam ne mën ngaa bàyyi yëpp waaw ah, xam nga ki wax nañ ne bu armalee dañ koy tere sollu ñaw bu dee góor dañ koy tere sollu peeg aw yaram dañ koy tere xeeñoo gët dañ koy tere sangu dañ koy tere leweeku dañ koy tere wattu yëpp dañ koy tere yooyu nag ma ngi koy boo demee ba bisu tabaski maanaam boo yendoo arafa ba ngoon nga ñëw farante Musdalifa mhm. xëy fa ñëw sànni jamra mhm. bi nga sànni jamra taxallul al asxar am na yéen la tere woon tere tuñ ko ba mu des jaaxasoo sa soxna ak rëbb ñaar yooyu ñoo des mhm. waaye sangook xëy ñoo gën tere tuñ ko ba léegi fan yi ngay am moona dañ lay tere nga jaaxasoo sa soxna ak rëbb maa ngi ñëw bis bi nga sànnee jamratul ba laa wax ba noppi xam nga liñ di gën a tàmm dangay sànni jamra euh, Euh, rendi mhm. watu mhm. maanaam watu rendi mhm. dem tawaafu ifaada ñi nga xëyee ci suba ci ci bisu tabaski bi nga xam tey la fukki fan nga dem sànni jamara dafa nga yeewu ku ndaw bu la ne wax dem sol sa yére bala nga tawaafi waaye dañoo taamu nag yére yi nga armale woon nga wëri ko kaabe gi jaamu yàlla gépp mu doon seere waaye foofu yeewu ku nga yeewu gu ndaw waxan tëreetuñ la sol yére tëreetuñ la xeeñoo gët tereetuñ la dañ boobu dañ koy sib gët yi dañ koy sib ba tey mm-hmm. waaye tereetuñ la kon sangu ak watoog lew ko yëpp tereetuñ la foofu sax da ngay watu fi ngay watoo mm-hmm. foofu it bàyyi xel ne watu gi it ñaar la bu dee góor day watu nel moo gën mm-hmm. wala mu jemp bu jemp nag kawar gépp la jemp tey dañoo bëgg mu jemp ko ca suuf nga xam ne bu noppee day mel ne ku watoo ba mu tàmbalee sax jigéen it moom sunnam mooy jemp li ko war mooy du sañti watu waaye jàmp gi nag du caagee ñu dagg fii tur bàyyi loolu yeneen ngir yi xëy na ñoo koy wax waaye ci masu Malik lu tolloog un an mu la lii moom ngay dagg ci kawar gépp nag bu jigéen ci kawar gépp la wax waaye doo ko dagg benn côté bàyyi loolu bu fekkee masu Malik ngay tënku ab lu tolloog an mu la ngay dagg ci kawar gépp bu dee jigéen loolu ci bàyyi ko xel bu defee nag bi nga ñëwee xëy sànni jamra juróom-ñaari jamra yooyu war a rendi bu fekkee am nga looy rendi watu daanaka foofu leen waxtu moo ci tege. dem tawaaf bi bi nga sànni jamono rek ci nga nag bëgg nañ yére armal yi bañ ko sumeegun dem tawaafee moom tawaaful ifaada boo deewee nag ba daf nag bu dox sa marwa defoon ko bu njëkk ba. Mhm. tawaaful xudum baax na. Mhm. bu defu ko nga door ko def yeewee ko nga nag yeewee ko man nga xam ne booy dellu si màkk ñetti fan yi mi nan nekkatoo ci ko aj bu la neexee an fak soxla. ñetti fan mi naan bu la neexee bu ngeen amee néeg nga nekk fa soxna ngeen jàmm yàlla foofu ndax yeewee ko gu ndaw ak gu mag la gët teeratuñ la dara kon ñetti fan mi naan dañ fay nekk waaye ak gi jeex kon yeewee ko gu ndaw gi ak gu mag gi lépp ci benn bis bu lay am bi nga xëyee daal fanaan Musdalifa xëy ñëw jam Mina ba sànni jamra mm-hmm. yeewee ko gu léegi nag. da ngay ñëw ba wër ba ba sang ba watu nag. mooy fekk na tawaafoon nga. Hmm. loolu doxoon nga sax maro bu njëkk. bu hmm. fekkee doxoo sax man da ngay dox sax maro door a door a ki defoon tamatoo euh, tamatoo nga xam ne daa njëkk umra. Hmm. moom bu dafay tawaaful ifaada faaw day teg safa maro ndax doxagut safa maro ngir aj gi. safa maro gi mu doxoon pour umra la kooku moom balaa yeewee ko gu mag day dox safa maro bu noppi waaye ki defoon eh, xiraan wala bu def ifraat. moom bi mu defee tawaaful ifaada rek añam mat na foofu la yeewee ko yeewee bu mag ñu bari foofu la ñuy jaaree dem seen hôtel summiku nag hmm. denc seen yamal sangu ba set wat di ñu bëgg a wat lewe ku bu ñu bëggee lewe ku xeeñoo seen gët sol sa yër nag dem Mina bu ko dee war faa def ñetti fan wala ñaari fan yoo xam ne nag hmm. dëgg la yaa ngi aj gi waaye nag yéen la doon tere moom kenn tereetulu hmm. jërëjëf sëriñ bi loolu leer na kii dafay laaj te mooy suñu laaj bu mujj xam naa ne mooy lan mooy manday mandargaay aj aj guñ nangu dëgg-dëgg. waaw mandarga aj guñ nangu de mën nañu jàpp ne mandargay xeeti jaamu yàlla yëpp la. Mhm. saa boo jógee màkk sa xel na ci baax. Mhm. mu gën laa xiir ci lu baax. Mhm. jàppal ne am nga aj guñ nangu. yaa nga doon def ci yi nga bàyyi woon ba nga nekkee màkk yëpp ngir ne caaxaanal la ba nga dikkee nga wéy ci. nga xam ne ñaaree ñu dem màkk ci dàkk ji la ñuy sax. looy it sëñ bi la koy bàyyi loo xel mbokk yi. ci dàkk joojee julli fa benn rakka moo gën julli junni rakka ci feneen moom macha moo tax kon di booy julli ji fexeel ba farata yëpp nga jullee ko ci jàkk ji léeg nit ñi nag dañ naan daal ba daa sore yëpp julli ko gën a defoo dara mhm. man nga saa boo xëyee julli si fajar mu mën ngaa dellu dallu ba tisbaar boo julli si tisbaar te amul leen looy def mën ngaa toog ci kaaba wana yaa nga fa ndox ma fa mhm. soo xiifee mën ngaa wut loo lekk mën nga faa nekk julli fa tisbaar takku sa timis gee door a ñibbi nga xam ne moom leer na la jàngeef julli yoo xam ne lañ ci nekk yooyu koy xamum toll uh-huh. dana la dox sa diggante gi nag na ci di wax wala lu amul lu njëriñ uh-huh. moo tax yooyu nañ ko bàyyi xel su ko defee ci bu ñuy bu ñuy bu ñu nekkee màkk uh-huh. mm-hmm. Mm-hmm. waaw xam naa ci ci ci ci tëj gi rek maanaam bokk yi da ngay gis ne suñ ajee ba noppi nag di ñibbisi rawatina fii ci suñu réew da ngay gis ñuy toggoo coono yu metti yoo xam ne lislaam te tegu leen ko mm-hmm. sërite yu bari ak ñëw nganela yeeg yooyu yëpp jaadu na tamit loo ci mën a labiré bokk jullit yi nga xam ne ñu ngi dem di joxe ji aj buñ ñibbisee coono yu bari yooyu eh, yan laabiri nga leen ciy jox. jërëjëf sëñ Abdoulaye xam nga ngir ñu wane nangu lañ sa aj hmm. boo fa jógee dangay gën a baax gën a bëgg lu baax. yàq nag bokk ci lu baax. toggooloo mënut bokk ci lu baax. Hmm. yàlla sant kenn. Hmm. yàlla moom laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusahaa. te ci yu mel nii nag sedd nañ ne nit ñaa ngi ciy toggooloo ñu mënut. moo tax ki aji màkk na teera leeral waa këram ne leen damay jaamu ji yàlla santuma kenn muy leb di ma ganale santuma kenn muy toggoo ci ganale lu mënu su boobaa mën na ko dimbali ci loolu waaye day jur ak kujje goo xam ne bu kii defee lii ngeen def na ko may fas naa yéen def lu ko te fekk ña koy def ñëpp kenn mënu ci dara mm-hmm. moo ne day aji jot dana julli ji bu julli jee ñëw kenn du ko defal dara mm-hmm. te julli moo gën a màgg aj màkk. Mm-hmm. loolu lu mat a hésité la woon. waaw ñu ngi dañ bàyyi xel loolu. Mm-hmm. julli moo gën a màgg aj màkk. Mm-hmm. su ko defee nag loolu buñ ko xamee ñu xam ne daa jaamu joon yàlla xëy na nag toggal ko añ teral ko dara nekku ci. waaye nag yu bari ak léegi yebbi mi ngi dañ ci yebbi léegi. yebbi mës a dagan fenn waaye rawatina ba aj dikkee. xanaa daanaka ci jaamu yàlla set ci bàkkaar. ñëw rek tàmbali nuuraat ci bàkkaar. loolu day wane ni ak aju nangu soxna yëpp jàpp na ngaa a jënd or indaale waaw ci def it ñoo xam ne loolu jaamu <laughs> yàlla la foofu mm-hmm. foofa lañ fay soxla ci xaalis ngir sa jaamu yàlla mën a mat mm-hmm. war naa doy ki mm-hmm. kenn wërta séenu ci moom bi nag nit ñi nañ xam xam ne sérité bu la fa mën a indil te du ndoxum sam-sam du tàndarame ajwa mën nga ko am fii faw ñu xel nit bi ñu ci loolu xam ne ndoxum sam-sam doy na sérité mooy ndox moo xam ne soo koy soo koy naan loo ci ñaan yàlla mën na ko naan xam-xam saxal na ay jàngooro yu ñu dem ba te médecin te ay docteur nit ki naan ndoxum sam-sam mu hmm. ko ku lu ko indi indi na la yiw at naga la hmm. ku lu indi tàndarma ajuwa indi na la yiw at naga la hmm. jàpp naan loolu na yi ci des yëpp kaala yeeg kurus yeeg yëpp la waaye ja amul solo su ko defee nag nit ñi nañ ko mën a gën a néewal mooy li gën teel ca yee nit ñi yee ci sa njaboot ndax am na ñoo xam ne xëy na Euh, dañuy bañ ñu ne diw sàngam def na te defu léegi nag boo teelee ñëpp doy na rek mu ab laaji bu ñu bisee moom ñu toggal ko añ ay mbokkam ak xaritam ñëw see arrêté ko moom it dina andi mën a andi ci ndoxum sam-sam ku dikk mu jox la nga naan hmm. su ma nee am tàndama ndax tàndama di daa xaw a nag hmm. moo tax ci nit kenn seenu ci nit mu indi ko ci lu bari du hmm. xaw a seer waaye ndoxum sam-sam moom doy na sëriñ ku la ko jox boo koy naan fas ci li nga bëgg mooy li ma waxoon ci jotaay yi weesu naa ko fàttali mbokk yi képp ku nekk na nga fexe ba bu fa naan ndox mu dul sam-sam hmm. ndox yooyu jënd di ko naan amul solo te neexewul hmm. na xëy na neexut waaye dafa barkeel hmm. te mën nga saa su moo ngay ndax bu wutee sa bidon boo xam ne booy julli ji soo duy ko mu fees di naan saa bu naree jeex booy julli woon yóbbaale mën nga jërëb da nga fay nekk ci Madina ca Màkka yëpp nag ndax ndox maa ngi Madina jàkka ja naanu kaay ya fa nekk yëpp sam-sama cee nekk ñu mel noonu nit ñi fexe ba profité ci loolu Euh, di ci naan soo ma rek soo ma rëtt nag sam-sam naanal ngir ngir ngir wut tiyaaba mhm. naanal ngir faju naanal ngir barkeelu mhm. boo ma rek boo ma rëtt del naan nit ñi dañuy seetlu ne ñuy yore jabar sax nga xam ne bu ñuy naan dañuy tur ndox lu bari mhm. ndoxum sam-sam da koy naan doo tur ndox lu bari macha allah bokk na ci ay ay ngëneelam am loolu daal maa ngi koy bàyyiloo xel mbokk yi di ñaan yàlla ñu dem jàmm ñëw jàmm yàlla nangul leen seen aj te ñu bàyyi leen xel na bu demee nañ ñaanal seen bopp ñaan adduna mhm. ndax bëri bu ñaanu ko bu ñu nangu ñaan la mhm. te farlu ci jaamu yàlla foofu mhm. foofa kenn du fa négliger dara lu baax loo mën jaamu yàlla ci ay ñaan ak ay sarax de ko def ndax foofu lu baax dafay fuloo waaw bul sa bu ci bu ci bu ci sànq dara yii nit ñi def di ko sànq yeneen yoo xam ne benn njëriñ fexe ba def ko ci luy tax yàlla gërëm la luy tax sa yu des mu leer la bi ngay ñëw duy nga moom gis gan ak lu baax macha allah loolu mooy ndam seen daal. Mm. barakallahu fika jasakallahu xayran sëriñ bi eh, ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ndokkeel bokk yi nga xam ne fas nañoo yéene dem siyaare ji baytullahi alharam ñoom ñëpp rawatina bokk yi nga xam ne ñoo doon déparé fii tey ci jumaay ju mag ji nga xam ne dañuy jóge ci sëriñ bi jëm ci yonente bi min al xadimi ila al maqdum mu ñi nga xam ne ñooy dem ci assance Xaadimu Rasuul voyage te tey jii cheikh Mouhamadul Mountakha yabal seex cheikh Mouhamadul Xabbaan ngir mu doon leen ñaanal dénk leen ñu ngi leen di ndokkeel di ndokkeel jullit yëpp it ak taalibe yëpp ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm te sunu borom nangu seenu aj ñu ngi ndokkeel bokk yi tamit bokk yi ñu doon topp yëpp te di leen sant di leen gërëm ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci seen émission gàggantiku di sant sëriñ Abdul Xaadir Bousso mi nga xam ne mooy réaliser émission bi ak caméramanam sëriñ Bàcci Ba ak bokk yi nga xam ne ñooy jàpp ci liggéey bi yëpp euh, fu ñu mën a nekk Euh, di leen jox di leen dig daje incha allah ci seen beneen jataayu gàggantiku incha allah xam naa euh, gàggantiku bii di ñëw danañ waxtaan ci tabaski euh, ak ay atteem xam naa ne incha allah mbokk yi tamit ni ma ko waxee woon léegi rek laaj yi mi ngi fi bari na waaye incha allah ñu may ñu rek laaj yëpp sëriñ bi dina ko tontu wax dina mbokk yi yónnee message naan suñu laaj bi tontooguñ ko waaye yëpp incha allah danañ ko tontu dana ñëw ci seen émission gàggantiku kon asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam